بسم الإله الذي xuru mbàkke di bërëb boo xam ne naam sax ñi ko xam xawuta bari lool waaye nekk na gox bu làmboo ay taarix aki i mbóot jëm ci yoonu murit digganteem ak Touba war a toll ci ñaar fukki kilomètre xuru mbàkke mi ngi féete ci route nationale numéro 3 digganteem ak mbàkke xawuta sori lool dëkk bii nag lu tax mu am cëslaay ci yoonu murit mooy sëriñ Mamoor Anta Sali Mbàkke di waajur bu góor bu sëriñ Touba. moo ko sancoon ci atub 1868 ca boobule jamono sëriñ bi nee nañu mu ngi toll ci juróom-ñeenti weer waaye li gën a tax sax taalibe yi di fëq ngir dem di siyaare xuru mbàkke mooy li fa sëriñ Touba radiallahu anhu def ab ndawam li ci gën a bari ndax nee nañ fukki at la fa def moom ak ak i waajuram waaye tamit leeram yu bari maanaam ay doomam yu bari foofu lañ leen denc Dakaractu nag seq jotaay ak sëriñ Fallou Galass la ngir mu indi ay leeral jëm ci taarixu Khourou Mbacké waa Khourou Mbacké ginnaaw bu ñu ziare sëñ Touba Cheikh Mahamadou Mountakha ziare yoonu murid yëpp ziare njabootu sëriñ Mbay Jaxate euh, dëkk bi nga laaj moo de Xuru Mbàkke ta li tax mu nekk dëkku taarix nekk dëkku zear mooy euh, sëñ Mbàkke moor Anta Sali mi nga xam ne mooy waajuru Sëriñ Tuubaa soxna Anta Sali ma ko jur càmmiñam dafa dëkkoon foofu ci njax bi yàlla dogale sëriñ bi feeñ jamono 1852 ci Mbàkke bi mu amee juróom-ñeenti weer la la la la la woy juróom génn Mbàkke moom sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ànd ak soxna jaara ñëw fekk si nijaayam ci nja bi mu dikkee nag dal ak nijaayam nja ak xuru Mbàkke lu toll ci matub kilomètre bi mu dikkee nag ak nijaayam nag ci la ko nijaayam dogal foofu féetee xur wi ne ko mën nga fee def sa daara ci defi bay looloo tax ñu naan mbàkki mbàkki yi ci biir xur wi loolu moo indi xuru mbàkke comme ni ngay déggee mbàkke mbàkke yi nekk bawol ñu naan mbàkke bawol mbàkke mbàkke yi nekk jolof ñu naan mbàkke jolof mbàkke mbàkke yi nekk baari ñu naan mbàkke baari loolu moo indi sababu xuru mbàkke mooy mbàkke mbàkke yi nekk ci biir xur yi foofu sëñ Tuubaa def na fukki at juróom-ñeenti weer la am ba am fukki at génn ñu xuru mbàkke foofu ci xuru mbàkke ñi topp ci sëñ Tuubaa fa lañ jama ganee jamono ku mel ne maam Habibullah fa la ganee aduna ma nga ñu denc xuru mbàkke fa la ganee aduna bi muy toll ci ñeenti at wala yu tel noonu la génn àdduna ñu denc ko foofu maam Faati mi toppaat ci maam Abibulahi nga xam ne mooy jigéenub sëñ Tuubaa ñu bokk ndey ak baay moom it foofee la gënee àdduna moom bi mu gënee àdduna ay naara ko fab yóbbu ko ginnaaw bi la génn àdduna ñu xam fa mu génnee àdduna kon jàppal ne sëriñ Tuubaa bari na lu ñu koy nettali sax ci ak ndawam lépp Mbàkke la ko xuru Mbàkke la ko defee ndax Mbàkke juróom-ñeenti weer rek la am génn ko ñëw sanc baayam sanc xuru Mbàkke bi ñu fi sancee fi la Habibulaahi mi topp ci moom gën ganee àdduna fi la génne àdduna Habibulaahi ku bari woon histoire la ku bari woon taarix la ku bari baatin la soxna jaara wax na ci yu bari eh, Sëriñ Tuubaa nag bi Habibulaahi génne àdduna nag booba jamonoy baayam la waaye wutaloon na màndarga fi ñu denc Habibulaahi sëriñ bi dem foofu lu bari ngay dégg ñu koy nettalee soxna jaara fa la ko defee foofu la soxna jaara tàbbee woon ca teen ba boo demee teen baa nga ten bobu ñu doon wax ne da doon wutali sëñ Touba ndox ndoxum sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ndoxum jàpp timis dem fekku fa goj ba mu tàbbi ci ten ba foofa la woon ci xuru Mbàkke fiñ doon wax naan da ko fanane la woon tie sa xéru sàkket wa ci ngelaw lu bari la foofu ci xuru Mbàkke la loolu amee euh xuru Mbàkke daal ci lu bari ñu koy nettali soxna jaare ci ak ci ak ndawam lu ci ëpp ci ab liggéeyam xuru Mbàkke la ko def ndax poroxaan soxna jaare yàggu fa ñaari at la fa def wala ñetti at génn aduna bi sëñ Tuubaa di feeñ jamono ci Mbàkke juróom-ñeenti weer la am mu ñëw xuru Mbàkke kon jàppal ne soxna Jaara fanweeri at ak ñett yi mu am fukki at yëpp xuru Mbàkke la ko def kon dundam gi li ci ëpp ci bi mu nekkee ci ànd ak sëñ Mbàkke Mor Anta liggéey lu bari xuru Mbàkke la ko defee doomam yëpp ku dut sëñ Mbàkke sëñ Momar Jaara doo sëñ Tuubaa ñëpp xuru Mbàkke lañ gënee àdduna bi sëriñ bi bi sëriñ bi jógee foofu nag sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ma ba jaxu woote mu dem Pataar astafurlah mu dem Ñooro bam demee ca xare ba ba soxna jaare génn fa àdduna mu jóge ño ñooro ñu ñëw sanc pataar dem ci wetu njaañ jóge fa kër Amadou Yàlla ba nim ñëwee Mbàkke Kajoor ba ni sëñ Mbàkke Mor Anta Sali génnee Mbàkke Kajoor àdduna sëñ Tuubaa ñëw sanc Mbàkke bi mu sancee Mbàkke ba ni mu ñëwee Daaru Salaam jóge Daaru Salaam ñëw Touba jóge Touba dem Mbàkke Bari jóge Mbàkke Bari dem ci géej jóge ci géej gi dem ñëw daar ñëwaat Daaru Salaam sancaat Daaru Marnaan dem gànnaar 1904 3 jóge gànnaar ñëw Thiéyène 1907 jóge Thiéyène 1907 ñëw Njaaréem 1912 bi mu ñëwee Njaaréem 1912 nag ba 1914 ci la sëriñ bi xëy woo sëñ Balla Coro mu ñëw mu ne ko Habibullah de damaa bëgg a dem Xuru Mbàkke seeti sama rakk ju baax ja. yaa ngi wax ne may ne ci géej gi de. fuma taxaw batinam fekk na ma fa na ma suma la mujjon ginaaw do wet kon wetay gi nga ma baye xuru bakke suma la mujjan ginaaw yo do wet nee lol nak ñax na ma ñaxa ñax ba mënatumaa tok te di ma xuru bakke te fekk na tuba ñu ko residence amul droit genn njaareem ci la sëñ Balla cioro dem ñaan commandant bi nako dama damaa bëggoon bi dem bakke ma déposé sama dentité mu amul droit àgg tuba do àgg tuba ipi du fanal sëñ Balla Coro moo moo génn kayit d'identité am ko ak commandant bi nako du àgg Touba du fanaan Xuru tubaab yi soog a bàyyi sëriñ bi mu ñëw Xuru Mbàkke bi muy ñëw Xuru Mbàkke la yónnee ci eh, xulle sëñ ba fa nekkoon booba fekk woon na dencub sëñ Mbàkkam eh, sëñ Abibulahi moom moom la àndal daal di yebal Bay Jaxate na ko sëñ Bay Jaxate la njëkk yebal muy doomi sëñ mm, señ bay jaxate la fa ñëk yebal mu nekk fa mom ma nga tudd fofu euh mm, bi mu bi mu dikkee xuru Mbàkke mom señ bay jaxate bam fa toogee am at la ko fa señ tuba fekk fekk bobu waxon tek telon nako barab bi ak nam mel señ bay jaxate ñew xolal bopam ba gis barab ba defaraat ko ba barab maam abibila mu xol nek soxna jaara ba ba genn jeen ya nek soxna jaara nekkon mu defaraat neeba dem ba ca ten ba mu bëna ten ba yeesalaat ko toog fa nag di nekk sëñ mu amee at nag la ko fa sëñ Touba fekk fekk booba ñaan na autorisation ci commandant bañ may ko ko mu ànd ak sëñ Balla Coro ak ñeneen biñ dikkee sëriñ Touba bi mu jubee barabu Abibullah bi dafa summe ay dàllam bi mu agsee àgg suuf jàng fa alquran seere ko fa daa di àgg ca teen ba dugg ci néeg soxna jaara ba bam fa yendoo ba takk ba ba digg bëccëg li ñuy wax xaw a tooñ sax tooñ na ko sëñ Balla Coro nee na ko di sama xel daa nekk ci ma tegee fii dem Touba te xam nga tubaab bi ne noonu sëñ Balla Coro bu demee Touba rek yow ñu yóbbu ci géej sëñ Balla Coro nag ah damaa bëgg nga xam ne géej gi de mel yow képp ci mën a dem delsi te booy dem Touba rek tubaab bi di ma jàpp mu laa kon bisimilah nañ defaru ca dellu bi ñu delsiwaatee la sëñ yabal euh, sëñ Mandoumbe na ko Mandoumbe damaa bëgg ku wettali ji Abibulahi ngir bañ mu wér rek sëñ Mandoumbe ñëw sanc bustaan sanc dende yi mu yabal maam Cheikh ma Fall na ko damaa bëgg ku wettali ji Abibulahi maam Cheikh Rahima Fall ñëw sant sanc gébbu sanc Touba Fall sanc dëkk yi ko mu yebal sëñ Saliou Fall ne ko damaa bëgg ku wéttali ji Abibulahi maam Saliou Fall ñëw sanc Daaru Xafoor kon sanc murid yi nga dégg yëpp wéttali Abibulahi tax ñu sanc ko ci atum Balsas 1330 30 nangam at moomu sëñ Touba ak njabootam lu ci bari génn àdduna ka ci njëkk génn àdduna mooy sëñ Abdou Salaam sëriñ daf ko def daf ko jullee bi nga ko jullee ba noppi dafa daaj ak gaal def ko ci boobu ci tout tànk la gën a àdduna nan ko yenn ca bu gaal gi laal suuf buñu demee bu jub abibulahi barabu abibulahi ba bu mu ca àgg nañ ko nañ ko denc foofu daal di wax ne Salaam mën na boppam daa ñëwoon jamono ngir ngir jàppale si ma bi mu dikkee fekk li ñu war a def lépp ñu def ko mu a naa la jiitu ji murit bu faatu donte ma may ko ndox sax bala ngaa agsi abibulahi ci doomi sëñ Tuubaa yi Abdou Salaam booy jub xuru Mbàkke booy jéggi raay bi rek fa la ne kooku ko dencoon fi la raay bi waroon a jaar mais buñ masaa tubaab bi masaa di ñëw sëñ bay Jaxate day tëdd ci kaw xabru bi na raay bi dina jaar ci sama kaw soo a jàll waaye du jaar ci xabroom bi waaye lépp lu ñu fa masaa teg buñ dikkee bu subaa dañuy fekk mu dañ moo tax raay bi boo dikkee ba jub barabu Abdou Salaam dafa dafa dafa dafa jàdd sëriñ Tuubaa na fa itam ci ak njabootam lu mat fukk ak ñaar wala fukk ak ñett ci ay góor ak ay jigéen soxna Xari Pend Fall amoon na doomam joo xam ne bi tolloo ci wéree di sëñ Tuubaa da koo indi ci sëñ na ko damaa bëggoon nga ñaanal ko ndax Euh, nangam ak nangam te ay moroomam bi ñu tolloo fii dañoo dem ma bëggoon nga ñaanal ko sëñ Tuubaa bind benn lettre jox ko soxna xarit pend na ko demal yetal ma ko mbay jaxate ci xuru Mbàkke mu defee ne lettre bii mu bind bu dikkee da ko war yóbbu ci sëriñ mu ñaanal ko sëñ Tuubaa daa bind ci lettre ba ne ko kooku xarit pend boot bu accès dana dana fekk mu wàcc ab liggéey nag ma ko dencal ci añ armeel yi nga xam ne bi mu accès rek bi mu jànga bi rek def ko ne ana xale bi mu ne ko mi ngi nii mu wàcce ko fekk mu génn àdduna mu denc ko foofu denc ne fa fukki doomam ak nangam rakkam jooju fa tëdd seex yam fa yebal yëpp moo tax mu mu yebal leen fa ñu tëdd foofu ci xuru Mbàkke loolu nag li ko leeral mooy seex Abdou Lahad seex Abdou Lahad dafa am benn bis mu gën a ji sëñ Sohaybu li may wax maa maa ngi ko nangoo ci làmmiñu sëñ Moustapha May hmm. sëñ moor May astaghfirullah sëñ Mor May sëñ Mor ma ko nettali nee na sëñ Abdou Lahad dafay ñëw gane si sëñ bu di wax ak sëñ Sohaybu sëñ Sohaybu di ko nettali ci xuru Mbàkke ak lam fa gis sëñ Abdou Lahad daal di jaar ca wanag wa wuti Xuru Mbàkke sëñ sooy bu mu dikkee gisut sëñ Abdou Lahad daana ana sëñ Abdou ñu ne ko sëñ Abdou li nga ko doon wax ci Xuru Mbàkke tax mu dem fa moom it mu taal otom ñu daje ñoom ñaar ci bar ci Xuru Mbàkke ci barab bi sëñ Abdou Lahad na ko son yi bu xanaa xamoo ne Xuru Mbàkke gaar buñ muur la ku amul muur du fi teg tànkam gaar la boo xam ne dañ ko muur ku amul muur du fi teg tànkam loolu nag li muy tegtale mooy Abibulahi ma fa tëdd bi mu àndeek soxna jaara ca feeñagut jamono si soxna Jaara wax na ne buñ bu tàkkusaan masaa di jot damay génn kër gi dem ci àll ba xam nga lu tax muy génn kër gi dem ci àll ba mooy alxuraan ji muy jàng day ragal ñi mu dendal dégg ko ca daana jàng waqafa alxuraan am ñaar fukki isib ca booba feeñagut jamono mi ngi ànd ak soxna Jaara kon kooku nit yàlla ku mag la woon koo xam ne moo toppoon ci sëñ Tuubaa Xuru Mbàkke nag di bara bu siyaar boo xam ne boo demee da nga fa fekk fukki doomi sëñ Tuubaa barabu sëñ Abdou Salaam boobee it sëñ Tuubaa nee na ku nar dem sa war doo ko tiim ca ma nga ca xuru Mbàkke bala nga fa maam Habibullahi moom mi la mi toppoon ci maam Habibullahi ay naara ko fore foofu yóbbu ko dañ ko sàcc bi muy toll ci ñetti at ak yooyu ko yóbboo dëkk bañ ko wàccee defe ne dañ ko war a jaay wala nuñ ko sàkk ñu ba ca la génn àdduna nga xam ne naar yi jot jotuñu ko utiliser ca la ca la génn àdduna ñu denc ko foofu ñemewuñ tootuñ ko yóbbu ci àll ba lañ ko gas suul ko bi sëñ Tuubaa xam nga loolu mi ngi amee ci ay 1854 1855 ba 1857 bi loolu amee ba sëñ Touba dem ci géej gi ba ñibbi si ba 1916 1916 ci njariñ ñu bay gerte ca dëkk booba tool àllarba sëñ Touba jaay gerte ga def ko ci xaalis ba fab xaalis ba def ko ci enveloppe ñëw njaareem siyaare sëñ Touba jox ko xaalis bi sëñ tubaa bi mu tiimee xaalis bi daal laaj ki ko indi na ko xaalis bi lu luñ ko weccax ni ko ba mu doon ko mun ne ko xaalis bi suñ tool àllarba la mu ne ko tool àllarba bi fu ngeen ko bayee mu ne ko ñu ngi ko bayee ci suufus kajoor suufus njàmbur mu ne ko xaalis bi moo may seereel ne tool bañ bayee gerte gi fa lañ denc maam Fatim Mbàkke sama rab ja kon loolu tegtale ne barabu maam Faati ba mu réeree ñu xamuñu ci woon moom dara sëñ Tuubaa moo tegtalaat ne génn na àdduna ci waxtu sàngam suuf soosu dañ ko deñ kon lii mooy taarixu Xuru Mbàkke lii mooy Xuru Mbàkke sëñ Tuubaa def na fa fukki at ci ak ngoneem juróom-ñeenti at weer la am ci àdduna ba am fukki at soxna jaara génnut Xuru Mbàkke sëñ Mbàkke Mor Anta Sali génn ko sëñ Tuubaa it génn xuru génnut Xuru Mbàkke sëñ Abdou Lahad nag moo wax ne Xuru Mbàkke gaar bu ñu muur la ku amul muur du fa teg tànkam soo jógee Tuubaa jëm njaareem booy ñëw ba romb kër Ibra Yaasin bala ngaa ak si ndula jàddukaay bi mi ngi ci sa loxol ndijoor soo jàddee rek barab bi ngay njëkk a seen mu sës ci raay bi rek mooy barab Abdou sëñ Abdou Salaam boo jógee Ndakaaru it romb ndula bala ngaa ak si kër Ibra Yaasin mi ngi sa loxol càmmooñ jàddukaay am na fa boo jàddee it dugg biir xuru ñoo ngi sant bu baax sëñ Abdou moo fa ne di xalifa sëñ Bay Jaxate ñoo ngi ñaan yàlla yàggal ko fa te dolli ak wéram wasalaamaaleykum wa وسيل بالقرب بالملتقى ملأت بفضل الله ما كان يسال وسيل Adani Nawa